ay ca mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy suivre ci tele bu mag bi di TS TV Teranga Sénégal nuyootu nañu leen ci heure bu baax bi nuyu leen tamit ci tele bu baax bi ci émission bu mag bi di TS TV Teranga Sénégal ci seen émission ëttu askan bi ma ànd ceek sama xarit sama doomu ndey sama jine caméraman émergé bu ngeen ñu gisee fii ñu taxaw nag bu leen laajte fan la ñu nekk ñi ngi fii nga xam ne moom mooy xelkom war a dugg ci biir sëkk ak euh, ouvrier yi waxtaan jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund dara du leen ci ump ak émission bu mag bii di émission ëttu askan bi TS TV Teranga Sénégal bu ngeen ñu toppee Jine caméraman topp ma ñu dugg biir xel koom dugg ci atelier yi ruq-ruqaat yi xool lan lañ fay dund topp ma ñu dem.

bu ngeen ñu toppee dara du leen ci ump tamit ak tele bu mag bi di TS TV Teranga Sénégal ak les jumeaux ma ànd ceeg sama xarit sama doomu ndey sama jine man gis ngeen ñu nag ni ngi nii di dox pour dugg fi nga xam ne moom mooy euh, fii di ñu gën koo xam ci lan mi ngi noonu nii la ñuy def ayca nañu jàdd nii ayca nañu jàdd xel xelkom a ngi noonu waaye nag xelkom bi nag bokkut ak euh, xelkom jaago bi ñuy bayee bokkut ak xel komu sëriñ Saliou bi bii nag xel komu fi ñuy dóoree waar la fu ñuy fu ñuy liggéeyee asalaamaaleykum. tey ñu fekk ko ci atelier am di sëñu euh, dugg si fii nga xam ne moom mooy xel xelkom comme ni ma ko waxee nag mbokk yi seetaan bu ñu nee xel koom nag bokkut ak xelkom jaaga bu Serigne Saliou bi ñuy bayee waaye nag fii xelkom moo xelkom bële fee dañ fay dóor waar fii tamit dañ fiy dóor waar ñu fekk fii sëñ Lamine war a sekk ak moom waxtaan sëñ Lamine ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax sëñ leen jaare bu baax a baax di rafet lu ñëw bi ngeen fi ñëw waaw macha allah liggéey bi moom ñu ngi ci kawam rek dóor waar waaw xelkom a ngi nii dal leen jàmm ak salaam. tey bu xam ne fii si atelier bi ñu la fekk ak liggéey bi yan jafe-jafe nga xam ne Lamine mi mu ko fiy dund waaw jafe-jafe yi bari na ndax boo xoolee xel comme ni mu tëddee nii rek nga xam ni jafe-jafe yi bari na ndax boo tourné xool euh, amuñu sax foo xamante ni tey mën nañ fi gaari oto pour l'instant pour liggéey ndax xel comme dafa xat waaye nag dafa wuyu turam bu ñu xasee ba ne xel comme rek moom la mooy loolu moom ndaxte bi ñu koy dagg daal vraiment au commencement yaatu woon na waaye itam dañoo dem ba ci ginnaaw si gi suñuy emprunté mag nañu man nañ seen métier am ñoo xam beru nañu ndax boo xoolee daanaka ñu bari ñu toll nii sax ci mbedd lañ nekk di liggéey par rapport ak ñun ñi nga xamante ni tey ñun ñoo yor atelier yi daanaka booy xool euh, ñi nekk ci mbedd ñoo ëpp sax fi mu toll ñi nga xamante ni tey ñoo fi am atelier waaw moom jafe-jafe yi daal moom xaw na takku en plus ndox mi tam euh, xaw na fi bari daanaka tey bu tawoon nii ñu ci bari dañuy wàcc ndax. ouvrier Dakar yeeg ouvrier Thiès Euh, gis nañu euh, site bo xamné président defar na jam ñaajo euh, jël ouvrier yóbbu ko waaye lolu ba légui léegi guñ ko Thiès. waaw c'est parce que ouvrier Dakar kérok bi ñu leen defaralee foofu bi koy ubbi may may fa woon mais li nga xamanteni tay mom moom la ministre waxon dañ won buñu paré ci Dakar Thiès lañu jëm dañoo bëgg raison yépp ñu def ko fa. waaw mais nak depuis bobu ba légui ñu ngi tok di déglu amana yag na yagul waaw mais wax dëgg yàlla bu dee chute bo xamanteni buñu wara yobbu war a yóbbu ouvrier yi Thiès soxla nañ ko lool moom soxla nañ ko waaw ku nu ci jàpp it ah ñu jël. ministre ay jamono ci ginnaaw amoon na ci yëngu-yëngu tuuti coow bu amoon xel xelkom euh, foofu la coow loolu nan la mujjee. waaw coow loolu doon xelkom bii xam nga xelkom un dafa xam am xelkom am waaw coow yooyu moom euh, bu ma juumul xelkom deux la woon waaw mais xelkom un moom wax dëgg yàlla moom ñi fi nekk ñoom amuñu benn jafe-jafe ci seen diggante ak seeni moroom waa amuñu jafe-jafe boobu. mais xel 2 moom déggoon nañ fa coow ci seen problème mu terrain yi ni ñu ko daggee euh, dagg bi kumba am ndey la ak kumba amul ndey te xam nga rek moom ñafa ne daal bañ fa demee bëgg su loolu la ñu jot a tegal waa moom. Lamine lan moo tax léegi ndaw ñi bëggatuñu métier bi nga xam ne moom mooy lu jëm ci mécanicien lu jëm ci euh, soudeur lu jëm ci tapissier danga daan dugg ci atelier gis fa ndaw ñi du jàng métier léegi boo duggee ci atelier da ngay gis ne ndaw ñi dafay néew loolu lan moo ko waral. waaw mais yi moo ko waral. Jakarta moom daanaka toj na réew mi xale yi nangootunoo jàng métier ndax Jakarta fi mu toll nii tey boo bëggoon emprunté pour nga am ko euh, jafe-jafe ngay am ndax man rek daanaka presque deux ans may war emprunté bu ndaw boo xamante ni bii dinaay man di ko yónni mais daanaka euh, fan yi passé laa koy soog a am kon jafe-jafe moom dugg si na Jakarta daal moom boo bëggee dégg-dégg toj na réew mi waaw raflek métier moom fii ak juróomi day am ndax xale yi nangootunoo jàng métier te mag ñi fi nekk jëm nañu mag. waaye tamit loolu ñu ne jakartaay euh, tamit euh, mag ñi dañuy jéem a màgg yéen ñi nga tamit yéenay patron yi di ngeen toll foo xam ne it euh, suturlu moo leen fi bàyyi ndax matériel bi lépp cher na. matériel moom cher na waaw matériel cher na en plus bu fekkonte ni bi tey état dinañu accompagner ak équipement su boobaa sax nga xaw a moderniser sa atelier affaire yooyu mais itam problème équipement dañ koy am waaw ouvrier bu bare bare bare bare boo leen laajee problème équipement moom am. waaw li waral sax maanaam muy kii dañuy abalante ci suñu biir suñuy clé bu clé bi su ma ko amul sama moroom bi taxaloog man am na ko wala ka ca topp noonu daal la ñuy kii te xam nga atelier tam boo xasee ba dugg fi normalement équipement yi daf lépp dafa war a complet bu équipement yi complet dina waral liggéey bi gaaw waaw mais nag am na nañ jafe-jafe équipement tam waaw jafe-jafe équipement yooyu euh, waaye fii lu mel ne jafe-jafe courant ndox moom amu fi waaw jafe-jafe courant courant moom amu fi ndax courant moom fi mu toll nii ku bëgg courant euh, boo defee demande bi mën nga am jafe-jafe ndox tam am na fi waaw mais nag man bu dee ci sama secteur bii ma nekk moom jafe-jafe ndox amu fi sa parce lijjanti woon naa ba faxe bañ gasal ñu fi forage waaw forage bi boo tourné nii rek tout près da nga koy gis kon ñun moom bokkuñu jafe-jafe ndox mi mais boo avancé ci biir am na ci ñoo xam jafe-jafe ndox la ñu am carrément moom waaw. fu mu yamul euh, suma la mën a day melni fi lamine mën ak li lamine mën a dugg dugg ñi ci biir mënuñu ñuko motax lamine dem defa dem démarche indi fora ci wetuwaate léew waaw xam nga tam bay ci sa yow tank waaw ndax it euh, ñun biñ koy programmer dañoo programmer xam nga tay bo xolé xel ni mu tollu ben foras euh, doyunu arrangé wuñu sa parce que bu fekkee ñepp dañu bëggoon ñëw di fi rotsé amana ño xam dina leen sori trop tay buñ fi amone tay lu melni tay ñetti forage wala ñeent secteur maanaam koñ bu ne nga samp fa benn su boobaa man mën nga bañ am jafe-jafe ndox mais boo xoolee tam benn forage moo fi jotagul a ñëw te bi mu ñëwee tam wax dëgg yàlla euh, feneen lañ niseroon sax pour def ko fa muy ci espace bi fële buñ fa demee dinañ doon ko gis mais bi ñu waxee la ñu ni noo fii day day taa ndox euh, boo ko fi defee bu ëllëgee bu tawee euh, mën nañ am jafe-jafe dugg fi pour root par la suite lañ ko indi fii nga xamante ni moom du taa waaw ah, mais man moom sama yéene. a ah, bu ma sañoon xel kom moom duñ am benn benn jafe-jafe waaw ndax de lépp loo xamante ni tey jafe-jafe buñ ci am ma yëg ko maa ngi ciy def sama kéemtulaay kartan guddik euh, xel koom en tant que euh, euh, njiitu atelier guddi gi xel kom lu jëm ci wàllu lumière lu jëm ci wàllu sécurité waaw sécurité bi moom des na des na moom carrément ça bo xolé amna ci secteur yo xamanteni bi, amna am gardien am secteur yo xam amul gardien kon lol jafe-jafe la amana jamono yele ci ginnaaw nag won na euh sécurité gardenas indi won ko fi waye tam xam nga indi rek nga man la len fi téé tam ñun ñun lay doon wala ci ñi nga xamanteni ñom nga fi indi waaw mais indi won na len bañ def fi ay wèr vraiment mama bobu mom sécurité amna fi mom machallah mais fi may waxe yow ni mom am sécurité bi dess na mom dess na bu baax lumière bi dess na waaw des nag trop am na ci secteur yoo xamante ni bi amul lumière càcc gi bari na fi ndaxte sama doyen bi nga xam man ak moom ñoo taxaloo jamono yee paase rek euh, yor na fi oto oto jàmbur boo xamante ni bii doon ko toliyee ah bi ñu demee ba mécanicien bi wàcce moteur bi fañ ko teg bi ñuy waajal tabaski fa la ñu fekk moteur bi sàcc ko te fii rek lañ ko defee defee nañ ko tam secteur bële ci kaw jël nañ fa tam ay moteur yi moteur kon loolu moom wàllum jafe-jafe la ci sécurité wàllum jafe la tam ci lumière. waaw amaana lumière bi su doyoon ni mu war a doyee ah, képp ku xalaate ñëw dugg fi pour def fi ak ñaawteef boo xoolee lumière bi dinga nga xaw a mën a moytu tuuti waa. ndax jamono bi ñu leen ne dañ leen di génne euh, ci garage yi yóbbu leen ci site bi nga xam ne moom mooy xel koom bari woon na werante dafa wéet dafa sori waaye tey lan ngeen di wax. waaw ndaxte fi mu toll nii xelkom boo xoolee ñi nga xamante ne tey ñoo fi des moom seeni i place gore moo tax ñu toog fi ba léegi am na sunu naataango yoo xamante ni bii amoon nañ fi place mais bi nu déparé quelque temps mu metti bi mu metté ñom danoo dal di dem jaay seeni place dem xooli leneen waaw ñun nak depuis 2003 ba légui ñu ngi fi di suturlu waaw di daw rek di dundé suñu ñak dal waaw mais dal wax deug amna ci ñoo xam mom euh danoo joxé won seeni place mais tay képp ku joxé won sa place tay réccu nga ko ndax tay fi ñu tollu ni am fi place mom taw bu goor la yombatu fi ndax am fi place taw bu gor la yombatul fi ñi ngi koy dégg benn site bu bees xam naa après bu ñu génnee xel dinañ fa dem après boo jéggee raay bi muy site bu bees bu ñu koy wax euh, jak saw euh, xam naa après bu ñu fi génnee euh, fa la ñu fa jëm si tey en depuis 2003 ak léegi li nga xam ne gis nga ko xar-xaru kanamu fi nga xam ne moom mooy xelkom lan moo ci changé ak lan moo ci wàññeeku. waaw fii daal boo xoolee li fi changé akus néew ñu am ñu def ko fi mottali ko ci xelkom mooy man mii nga xamante ni bi àndoon ci ak kuñ naan Cheikh Badara ànd ci ak Ndiassé ñun ñoo fi xaw a am tuuti luñ fi changé mais bu fekkente ni suñu mag yi nga xamante ni bi tey ñoo fi njëkkoon a nekk vraiment mënuñu marqué lenn daal ni lii kat ñun ñoo ko fi bàyyil suñuy rakk waaw ñun nag bu fekkente ni ñun trois personnes yi nga xamante ni bi tey mu nekk ci man Lamine njaase Ndiassé Cheikh Badara tey bu nu demoon ba bàyyi xel comme tam am na luñ fi marqué ndax forage bi ñun ñoo ko fi indi Euh, problème mu taataa yu métti amoon na fi tam fexe woon nañ tam ba fexe ay ay ay ay ay charge camion yoo xamante ni pour ñu sëkk ko jot nañ ci def yenn secteurs yi mais tam mënuguñ ko dajale te bu ñu sañoon daal fépp day daal di mat waaw loolu moom def nañ ko fi deuxièmement tam euh, fexe nañu ba euh, aide bi nga xamante ni moom la président Macky Sall doon joxe lijjanti nañu ba dugal ko fi ñu ci baree bari jot nañ ci seen wàll fii ci Xelkom waaw am na it ñoo xamante ni jotuñu mais la tax jotuñu. ah ba ba ma ñëwee di leen ko wax amaana ah, yaakaaroon nañu defante ni pour dañoo soxla seen i carte pour parrainage wala leneen te fekk demewul noonu waaw mujj lañ ko réccu yit mais amaana seen wërsëg da cee nekkul daal waaw waaye ñun sunu sunu yéene daal bu nu sañoon xel kom fu waay nekk rek di fi yëngu lépp loo xam ñu ngi koy séddale di ko joxe rek nga jot ci sa wàll ñun loolu mooy sunu yéene. ñun est-ce que joxante bi euh, am na fi nga waaw man de wax deug yalla wax deug yalla euh, man mom awma fi euh, ay xaar ma yalla man mom wax deug ñepp jox nañ ma cër mag ñi jox nañ ma cër ndaw ñi jox nañ ma cër franchement parler lepp lo xamanteni ma ngi leen ci woowit ñu ngi ma ci wuy ci ñom mag ñi buñ mënta ñew ñu ngi yebal seen empreinte ñuy ñew wax deug yalla mom jox nañ ma cër bàyyi nañ bàyyi nañ ma xel bu baaxa baax mom mom awma ma kenn xaar ma yalla ndaxit ñom ñepp jamm la leen yene ak euh, lu baax ak yokute waaw lolu moy sama ki ak ñom waaw tey boo ñu doon defal kàddu gu mujj gu avant ñuy dem fële nga xam ne moom mooy cité Diacksao mhm. waaw di sant rek sant bu baax di rafet lu ñëw gi ngeen xamante ni ñëw ngeen ko ndax it lii euh, yaakaar naa defe ne su ngeen ko defee bokk na ci li doxal am réew waaw di ñaan yàlla tam seen télé bi vraiment nekk télé bi nga xamante ni moom moo bu mujjee juddu tam na jiitu na jiitu waaw ndaxte yii am na solo waaw ndax ñun ñi ngi gis émission yi nga xamante ni yéen a ngi koy def jëmale ko ci artisan yi ndax yéen bu ngeen sañoon moom vraiment artisan nekk ca kanam waaw ndax ndaxte wuy si naa leen ay émission yi émission kon tey su ngeen defee déplacement ba ñëw fekk ma sama place vraiment loolu moom fierté bu rëy la ci man kontaan naa lool di rafetlu macha allah waaw ñëw bi. moom mooy xelkom jafe-jafe yi nga xam ne am nañ fi rawatina xelkom 1 xelkom 2 bi nga xam ne ñu ngi koy dégg. Euh, fi ñu jëm Lamine moom waaw fii benn chute la boo xamante ni bii lu fi réservé woon soit mënoon nañ ko def même bu dee parking boo xamante ni bii tey ñi nga xam ñu ngi fiy liggéeyee bu nu amee ay oto bu nu xëy see gaare ko fi mais néew doole tax na loolu mënaguñ ko sa parce que dafa laaj budget boo xamante ni soit ndax ndox mi kii yëpp dafay daw jaar fi waa gis nga ko boo xoolee en plus poste courant bi moo nekk nii ci wet gi gis nga lii lépp ngay xool mbalit la waaw te it vraiment bëgg nañu. Euh, autorité bu nu ci dimbali waaw fii yëpp mbalit gis nga fii waa mbalit meek ñu sëkk ko ba nga xamante ne bii euh, donc euh, ku ñëw man fi gaare sa oto waaw mais xam nga nii ñu ko def nii moom vraiment ça ne va pas moom waaw. waaw bokk na ci jafe-jafe waaw. mbalit mi ñu ne dégager sëkkal ñu ko. waaw poste courant moo nekk nii fi bu tawee day fees dellu doo fi ñëwee taxaw waaw. gis nga jàpp lii yëpp Souley waaw. lii lépp ci xel koom la xel koom la bokk. waaw ci la bokk. moom hmm. waaw gis nga yii yëpp ngay gis nii hmm, waaw. ay jafe-jafe la gis nga ko oto yi yàqu yi tout ça war nañu wara a foo xamante ni bii tey ñi nga xam suñu mbokku ferraille espace bu ñuy tasi seen i oto. gis nga ko xool nga fii xam nga ni te buñ la waxee ni la fii atelier la waaw xam nga fii ni mu mel ah. dafa xaw a désordre waa gis nga ko yëpp ci kii ak pourtant atelier pour dugg ci atelier yi sax day nekk lu jafé fu mu toll waaw jafé jafé la li jafé jafé la légui rek bi ngeen di ñëw auto bi ma doon indi gis nga mo nekk auto bële mais pour ma duggal ko fa rek problème la waaw gis nga ko ñi yëpp suñu mbokk ferrailleur yi fi ñom ñoko occupé ñi ay ferrailleur lañu fi mom moy place ferrailleur yi ben place place ferrailleur waaw mais amna yenen place ferrailleur yu fi nekk Xelkom li ñuy naan car macha allah Xelkom dafa màgg. dafa màgg ba dañuy dem ba nële. chiit bi fi desoon en plus ñu fexe woon ba gars yi occupé ko bari na ñu bari ñoo xam dañuy ñëw ku nekk naa man maa ko moom maa ko moom ba léegi ñun ñu ngi fa rek ak suñu euh, léegi dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw naan ñoom ñoo ko moom. waaw am na fi am na fi am pagaay. waaye ba léegi rek yéen a ngi am gëm-gëm bi. nii ñoo ko ne yéen ko moom daal di toog pour bañ kenn koo xam ne dina ko laal. waaw effectivement ci loolu lañu tënku. ndax képp ku fi ñëw moom boo ci fekkee suñuy élément nekk fi moom pour nga yëkkati leen fi moom du yomb waaw ndax bari na ñoo xamante ni ñëw nañ fi ni ñoo ko moom dem indi seen i kayit mais dara suñu réserve la ñun xam nañ ci dara ndaxte ñoo sañ ci xel xelkom daal xam nañ ci dara waaw. ndax comme xelkom ni mu màggee léegi xel eh, xelkom mën nañu ne dem na ba dugganteeg eh, biir dëkk bi. waaw kon mi ngi ci biir dëkk bi ci biir dëkk bi waaw. waaw kon léegi dañ naan pour am fi terrain moom. yombatul <laughs> yombatul moom waaw loolu moo tax espace bu ñu fi gis rek. waaw euh, dañuy profité euh, pour def ko seen moomeel teg seen loxo. waaw waaw loolu la waaw. kii moom sunu doyen Ousmane la mënuñu koo romb moom te sànni doyen Ousmane. doyen Ousmane Thiam. dañ doyen ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. waaw moom daa nekk ci ci ci ci njàppali moom. waaw tey nag ñu ñëwoon fii àndoon ak euh, Lamine. doon vérifier xool euh, jafe-jafe yi nga xam ne euh, waa xel Xelkom tamit euh, ñu ngi koy dund looloo taxoon tamit ñu ànd ak moom doon tourner dugg fi nga xam ne moom mooy xel Xelkom. ci wàll gépp ci wàll yoon yeeg ci wàllu ndox meeg ci wàllu lépp daal loo xam ne daal waa xel Xelkom ñu ngi koy dund. waaye nag parfois moom mën naa ne jafe-jafe yi moom bari na ndax boo xoolee xel xelkom euh, dañ noo dafa dafa jekk ci ñu war noo jàppale waaye daanaka booy xool li ci ëpp moom sedoon lay daa dala dafa des ndax toujours damay wax ni man de wax di yàlla yàgg naa fi lool te mosuma gis fii kii yu mbalit sax lu nu ko fi tegal waaw ndox mi fi dugg ko su néew ko am d'accord ñu jàpp xoolal lampe bi ci kaw sabu sa bu sa bu yakko ñokay koy defaral suñu bop te bu ki joté ñu ñew ni manam sak ana ñu ñew ni la légui war nga fay nangam te danaka gis do ci gis sa bop waaw kon japp légui néew mu amul me lu bare bare dess na lo xamni war nañ ko mëna jappalé muy swat di jappalé ci fuñuy tour mbalit amu fi fi do fi gis fu kess bu ki yeb ku ne balé dem yóbbu fa bi ñew gis nga mbedd ni mel waaw làmp yi gis nga ko bu lakkee ñun ñooy làmp suñu poos fii ñaata yoon maa ngi wër fii làmp bu fi lakk ma wut nit seet kenn ku ci nekk ñu participer ñu defaral nu làmp yi ñoo koy defaral suñu bopp làmp yi ñoo ko jënd vingt cinq mille def ko kon mën naa ni jafe-jafe yi bari na fi te it kon nan nu ci war a jàppalee des na waaw kon daal xam naa ne daal si côté boobu daal lu nu ci mën a jàppalee daal

poubelle au mbalit wala tamit lu jëm ci walu lampe lool lepp tay ci jafé jafé la te chaque année dégg nga ni ko waxé dañuy ñëw am lu ñu leen fayloo dugal ko ci kafaga réew mi waye loolu lepp it du dellu ci waat tamit euh, ci li nga xamné mom moy ci ci ouvrier yi loolu lepp tamit ay jafé jafé la comme Lamine niko sunu papa ji waxé waaw waaw comme niñ ko waxé non rek loolu la amé ndax té bu waxé ci problème mbalit yoy effectivement ndax légui xam nga diggante fi dafa xat ba nga xamante bi mbalit moo fi bale boo ko té euh, jëlee sotti ko fenn place su jàmbur nga ko sotti te loolu boo sottee mbalit ci place jàmbur day bokk ci tooñ poubelle mbalit yooyu mu la yàgg nañ ko réclamer mais ba léegi mairie bi nga xamante ni tey moom moo fi nekk euh, seet si nañu benn yoon bi muy soog a falu mais wax dëgg yàlla boobu lañ ko mujjee gis man def waaw waaw def naa dem naa fa ñaari yoon pour gis ko mais mënaguma koo gis waaw mënaguma koo gis moom wax dëgg yàlla waaw te nu sañoon tam euh, mu ñëw Ah, xol suñuy jafe-jafe limu ci man ah, muy néw ak bari mu dimbali ñu ci wa bu soxla non lool lool lool ah, shit bima la gis nga ko ne lépp réserve ci xel kom la bok moy shit bi moy réserve waaw mais bari nañu bari ño xam dañuy ñëw bu ñëwee tam dañ naan fii ñoo ko mom affaire mais nit ñun ñu taxaw ak suñu mat rek nangu ñu dal mom kenn mom ndax ñun biñu ko dagalé fi lañu fekk dañ ñoo wax ñu li réserve la réserve nak bu fekkente ni li la mom keneen mënu ko jël ku kon réserve bi euh, coow li ba tey bi ngi am ndax réserve bi mosoon nañ fee ñëw ay jamono. wala euh, kon ba tey coow li ba léegi am na ñuy faral di ñëw naan ñoo ko moom. ñuy faral di ñëw naan ñoo ko moom ndax boo xoolee euh, fële na la ci kanam am na benn waay bu ñëwoon ba sotti woon ci suuf bëgg a tabax mais dañoo lànk ni ko doo fi tabax mooy diggante bi fii espace espace vert bii ngay gis fii moom lañ ko programmé. espace waaw kii sama benn booy la mooy defar biis fii. Ah, kii moom mooy defar biis mooy jëli jiili biis. waaw moom it vraiment muy sama rakk joo xamante bii. macha allah lu ma nekk rek mu nga ca moom. waaw kon moom bu ngeen ñëwee fii tam ah faaw ma jaar ci moom mu am ay kàddu yu ci sànni wax it jafe-jafe yi mu am fii waa. jiili biis. waaw bu tur day wuyu boroom bu ñu nee jiili biis ñu ngi la fekk ci biis bi euh, ngay liggéey tey ñu ñëwoon seet si leen euh, jafe-jafe yi nga xam ne. yene ngi koy dundu am ko yene jafé jafé rek jafé jafé yi daal mooy comme wàllum way rek gis nga gis nga lii lépp zone industrielle la pour ouvrier mais gis nga ko lepp maam dañ ko jël jox ko ño xey xam ne duñu ay ouvrier xamuñu luy oto te xama fi manam idi dañ ko dagalon pour manam ouvrier comme ça waaye gis nga ko ay ay ay jaaykat yi cere lu ne lañ ko jox ñun gis nga ko ni dañoo coogalu ni rek yaa ma gën xam waaw te manam gisoo ko nii gisoo lii lépp ñun ñoo ko gérer fii nii yëpp ñun ñooy ouvrier yi maam daal yaa ma gën a kii suñ grand la Lamine Kane waaw moom wax dëgg yàlla moo si jàpp daal di côté yëpp ci wàllum comme bu nit ñëwee bëgg a yàq ak affaire yooyu ñun ñëpp a jug nekk benn boobu waaw loolu rek moo ñu naqari fii mais amuñu leen lu ñu naqari nag. dafa fekk euh, liggéeyu biis yi. waaw ñoo ñu ngi sant yàlla bu baax. moo tax ñu tuddee la jili biis maanaam jili biis moom biis dong la liggéey. biis dong lay liggéey. waaw am nañ ci loolee nag wax dëgg yàlla waaw ñu ngi fiy sant bu baax a baax a baax lu lu nit di dem di génn di di ko wuri waaw ñun am nañ ko fii wax dëgg yàlla waaw ñu ngi fiy bu baax ah, wàllum côté boobu moo benn problème ñu ngi siy liggéey ñu ngi gis suñu bopp si waaw réew mi ñëpp xam nañu koy transport boo nee ji xam nañu waaw ñu si siy gis suñu bopp bu baax daal wax dëgg yàlla jafe-jafe daal comme lii rek la waaw waaw waaw képp maanaam place pour liggéey mais amuñu beneen jafe-jafe àdduna moom ay ca jiili biis moom ngeen gisoon noonu euh, ba léegi ci yoon bi lii la ñuy tuddee li nga xam ne moom mooy Mercedes. 290 Mercedes 290. 190 190 Mercedes ah. tey ñu dikkoon fi nga xam ne moom mooy xelkom euh, doon xool jafe-jafe yi nga xam ne en tant que ouvrier yéen a ngi koy dund ci xelkom. asalaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bu leen nuyoo di leen sant yéen waa télé bi di leen remercier ci ñëw bi ngeen ñëw di ci kontaan loolu nag di gërëm sama rakk ji Lamine. ndax nit ku baax la wax dëgg yàlla lu mu am lu ne dama ci boole te fu ma gisee jox na ma cër bi ñu ngi koy rafetlu ñu ngi rafetlu yéen seen ñëw bi ngeen ñëw fii ci Xelcom seet ñu ndax li dafa baax lii dafa jafe te lii daanaka mooy doxal société. ndax euh, damay wax toujours ñun ku dàq ci école ba ci ñun nga jëm si ñun du ñu fayeeku du ñu def dara yaa boo dee woyu ci ñun ngay ñëw bu la dàqee ci ñun ngay ñëw. doo fayeeku doo def dara te boo wàccee daanaka nga jox ko dara lu mu raxasoo wala mu fóotee te nii kon ñun war na nañoo jox suñu cir bu baax a baax kon rafetlu na ñëw bi ngeen ñëw fii euh, wax dëgg yàlla di waxtaan ak ñun waa ñun nag moom euh, man zone industrielle fii laa nekk mooy sama place fa fii samay mag ak yëpp fi la ñuy nekk fii laay wut say bagage waaye suñu jafe-jafe rek mooy yoon yoon ak ndox mi fi muy taa wax dëgg yàlla di remercier ministre bi ndax ministre bi moom jàmbaar dëgg la ndax tamit à grâce de Lamine ndax tey jii bu ndewee ba am fi lu fi am ginnaaw yàlla Lamine mii la ndax moo ko def fii ci Xelkom moo ci taxawu taxawu ñu yàlla def yu bari ñu am ko fii kon moom dañ koy remercier remercier ministre di teel comprendre nga wax kon euh, wax dëgg yàlla euh, di leen wax rek nu suñu Xelkom moom mooy lan yoon surtout ment loolu yoon ak renforcer wax dëgg yàlla xale yaa ngi di di am man seen métier waaye duna am fu nu nekk duna am placement yu nu nekk mooy sama côté bee ndax bëgg naa sax ngeen ñëw fa ndax man tam ci côté benn côté bi laa nekk euh, wax dëgg yàlla loolu daal mooy sunu mooy sunu kii moom te gën ñoo jàppale bu baax a baax a baax a baax xam ne tey jii ñu ñoo yor réew mi ñoo ndaw xale yi ñoo lay yor ku ci dàq fii nga jëm si te ñoo lay jubbanti di la teete ba nga mën a am li nga war a am dem wut sa garage kon war na noo jàppale bu baax a baax lam ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ci woo bi nga ma woo ba ma mën a waxtaan ak waa télé bi waa télé bi tam ñu ngi leen di ñu ngi leen seetaan bis bu ne

wax na ko tamit euh, réserve bi nga xam ne euh, espace vert la loolu lépp tamit euh, ñi ngi ànd ak moom ba léegi ci tournée bi ci jafe-jafe yi sëñ Lamine. waaw mu ngi nii gi nga boo xoolee fii espace vert la mais am na benn waay bu fi ma soon ñëw ba sotti fi suuf pour bëggoon fi tabax mais dañ koo bañ waa par la suite gis nga ko am na suñu benn copain boo xamante ni bii tôlier lay liggéey fi lañ ko bàyyi moom mu occupé ko waaw te it ñu ngi ci seen kanam ñu ngi ci seen ginnaaw duñ nangu daal kenn jóge fële daal di ko néewal doole moom duñ ko nangu.

ñi ngi ñëw tamit di liggéeylu te ñiy liggéeylu tamit du ñàkk ma ma ma ñu sànni ci kàddu euh, tey ndeysaan kii sunu grand la ñu ñëwoon fii nga xam ne moom mooy xel euh, Xelcom di xool jafe-jafe yi nga xam ne ouvrier yi ñu ngi koy dund euh, en tant que tamit nga ñëw ñu fekk la fii ci biir Xelcom mën nañoo xam yan kàddu nga ci yëkkate ak la la fii wut fii grand Sega. salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh bi ñu ngi leen di nuy ñu ngi leen di ziar waa yàlla dafa def ñu daje fii si garage bu ñuy wax Xelcom. ma doon defar si sama oto bi doon ko yeesalaat ak yooyu euh, waaye def naa fi presque une semaine vendredi la fi oto bi ñëwoon ba tey mercredi ça fait bientôt une semaine mais ay jafe-jafe kese la boo xoolee non seulement foo gaare problème la xat na mais également salte na bu wisee rek mu inondé yéen ñu gis oto yi amuñu fu ñu gaare nit ñi amuñu fu mu jaan donc ñu ngi interpeller autorités yi en l'occurrence mairie zone nord fii dafa naa ouest ouest la bokk donc nous avons le maire pour que vraiment mu venir en aide ouvrier yu nga xamante sont là ñoo di parce que bu leen dimbalee rek la famille parce que nous sommes tous ay gagne-pain lañu suba def calcio ont ba ngoon dara daw ko vraiment il mérite d'être appuyé donc monsieur le maire nous avons Xelkom qu'est-ce qu'il faut faire par exemple gravats yi une urgence yaatal yoon yi aussi urgence la donc loolu laa si bëggoon wax Assane di leen sant di leen gërëm ah. euh, mi ngi noonu euh, li nga xam ne grand bi wax na ko à chaque fois moom la ñu nemmeeku tëngu ne du teew ñiy nataal mi ngi nii sunu kanam euh, benn gis nga ko nii mi ngi noonu ñu nit bi ñu fi duggee nemmeeku nañu yoon yi tamit jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ndeysaan kon ndake kayit duñ ko laxas kase ci mburu ah fan ci man kaw dugg fii kon kayit ndake kon kayit man dama yaakaaroon ni mburu dong lañ koy laxasee hee salaamaaleykum ah foofan la ah, kayit yi moo nekk ne lii lii sawaay léegi man li ma jaaxal mooy lii ay soleil la léegi fii la fa bi nekkoon de lii lii lii mooy kon booy peinture faaw nga def ci soleil waaye nag yow fu mu toll nii kontaan naa ci yow de falal en tant que jeune ma fekk la ngay dóor waar te fu mu toll nii néew na léegi nga dugg ci atelier yi fekk fa ay jeunes ñuy ñuy dóor waar lan ngay wax sa moroomu jeunes yi. sama moroomu jeunes ñu gën a góorgóorlu rek laa leen di wax. ñu gën a dóor waar. waaw xel koom gii nga nekk nan nga gisee xel koom gii nga nekk. xel kom gi lu baax ci jeunes yi la nag. lu baax ci jeunes yi la. waaw ah. man dama yaakaaroon ne ay soleil ay mburu ay beñe lañ koy laxasee ndake soleil dina dem ba ci oto. waaw dina dem ba li ngay def mooy poncer. waaw gën a la góorgóorlu dóor waar rek. ayca mii ngi noonu ba léegi euh, ñu ñu wëyal euh, ànd ak euh, sunu sunu sunu grand mi ngi noonu atelier bii ñu duggoon nag moom mooy atelier peinture man nag li ma jaaxaloon dama yaakaaroon ni këyit ay mburu këyit beñe këyit leneen ndake nag ndeysaan. solo yi ndeysaan moom la ñuy kiiwee ci ci sunu oto yi mi ngi noonu jàmbaar ngeen jaa jëf dóor waar rek ndeysaan ku nekk ak sa métier ku nekk ak li nga xam ñun lii la ñu xam yàlla lii la ñu jagleel Lamine ñun wax lañu xam micro bi la ñu mën tey ku ñu bëggoon a jox oto na ñu tël toliyee leen ko wala ku ñu bëggoon a jox oto na ñu pentiir ko wala nga depaane ko it da ñuy da ñuy da ñuy sonal sëñ Lamine yow fii ñu dugg mooy mooy ban boorati. kii waaw ñu ci réserve bi ni waaw ñu ngi ci sur réserve Xelkom bi ba léegi nii waaw. fii jàkka la macha allah. am teel teel waaw Adama ba mu bokk na ci ñu nekk ci secteur bi waa xaaral Adama ñu jox ko mu sànni ci ay kàddu. waaw léegi kii rek joxal Baye Mbaye rek. Baye Mbaye ñu rek. joxal Baye Mbaye rek jafe-jafe yi la rek. jafe-jafe yi man waay fii ngeen moom fi am ay kilifa xalifa yi nii. ana xalifa voilà ah, sëñ xalifa ko. Eh, Lamine jëggal ma damaa jàpp. Ah, <laughs> ah, moom nee moom dafa jàpp. waaw ah bu nu eggee ci doyen rek moom dina ci wax. foofu ñu génn moom ah, foofu ñu génn moom euh, surtout bi nga xam ne moom mooy réserve mooy réserve bi waaw waaw mhm. ak foofu nga xam ne jàkka ji tamit euh, euh, autorité yow ko fa def wala ñen ñoo ko non ñi fiy liggéey ñoo ko fi def ku ci mel ni sunu bay Baye Pambay ñoom ñi ñoom ñoo fi nekk mhm. waaw xam naa ni dinañ ko jox mu sànni ci ay kàddu waaw Baye Pap ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaw télé bi moo fi ñëwoon di laaj jafe-jafe yi nga xamante ni moom la am fii ñu dugaloon ko fi te nga bokk ci mag ñi nga xamante ne bii vraiment mag ñu baax nga ah jiital ñu rek tafa kastaloo waaw ñu la doon laaj daal nga sànni ci say kàddu jafe-jafe yi nga xamante moo am fii biir xel ko biir ah, fi ne nii moom wax dëgg yàlla moom mooy jafe-jafe yi gone yi fi ne mhm. ah place yoo xamante ne nii ñu ngi ko place ñuy liggéey daal fu ñu liggéey daal mooy seen jafe-jafe mhm. moom laa fi gis ci jafe-jafe yoo xamante ne am na vraiment daal ku ñu sañoon gone yi fi nekk te ñuy place ñun waxuñu nak ñun mag ñi ñun suñu walu wéy na mais boy yi dal lañuy wax nañu amee place mom mo fi suñu problème mo do jax ndaw ñi gëna am place am place yi ñu liggéey dal japp ci lool dal lañ bëgg inshallah allah bi ci dess moy ñi nga xanté ni yalla jàpp def na ñu ngi fi nañu yalla yalla dimbali ñun ngeen jàppale leen ñu man ak kii ñoom itam wax dëgg yalla ndax ñoom ku ci sonu lañu ñoom Lamine ñoom ñi ñoom sonu nañ ci ñoom itam kon ñam itam ku leen jàppale non non itam jàpp non nga jàppale jërëjëf euh, mi ngi noonu ba léegi euh, ku leen jàppale euh, ñoom nga jàppale ku gis bi nga Lamine amnoko, na ko fi nga atelier bu ñu ben fu ñu romb benn kàddu gi la ndax ndax xoolal fii tamit bëgg fii soo xoolee waaw lii lépp tamit ay jafe-jafe la xoolal euh, ndox mi ndox mi ni mu mel euh, mbalit mi ni mu mel euh, autorité yi tamit faw ñu dugg Xelcom jàppale tamit askan bi nga xam ne ñi ngi fii ci Xelcom te ci askan bi la ñu bokk te tamit dafa am loo xam ne ñoom it dañ koy génne di ko def ci Kafaka maire lii lépp tamit nañu ñëw jàppale leen ci askan bi la ñu bokk lii moo waral sunu émission

di xelkom di dundu jamono ji de tembe lolo. Momo mo waral ñu àndoon ak télé bu mag bi di Teranga Sénégal les jumeaux émission ëttu askan bi wacc ci terrain bi liñ leen ko chaque jour ñun dañuy dugg ci ruq dugg atelier yi dugg ci bi télé bu mag mo fi ñëwoon ah, dugg xel ko yema a xel ko nu toge seeni jafé jafé euh ah, yi nga xamanteni mom lañ am fi ci xel ko ah, ñu bëggoon tay yow jafé jafé yi nga xam tay am nga ko nga xol ko suuf. jafé jafé yi kay yéna ko gis gis ngeen ko ni yéna a ko xool. waaw moom kay mo tax kay ñun kenn netali wu ñoo gisal suñu bop wedd werante moom defe naa. <laughs> waaw gis mom bokku ci. waaw gis ngeen ndox meeg yi lii rek ñun mom moy suñu problème waaw waaw yeneen li si des nag moom xëy rek door waar. bu ñu wàccee aca dem. te yi jàpp ci jeex na ñun lii rek ñun mooy suñu problème. waaw comme ni ñu ko daan waxee rek ñun moom soxla nu ko jox xaalis. waaw fi nga xamante ne fi la ñuy daal dañoo bëgg moom chaque jour ñu defal ñu ko daal. ba mu jeex na mooy suñu problème di di di lancer appel euh, maire bi nga xamante ne bii ñu ngi koy wax jiite. Euh, mu coiffé côté bi yëpp vraiment dal soxla nañ ko fi lool lool soxla nañ ko fi waaw ndax it bu fekkee ne da ngaa coiffé béréb Euh, mu nek bërëb yi nga xamanteni bi bërëb bu mag la entreprise la ku nek mu ngi fi borom xam-xam bu ne mu ngi fi ah biko yalla joxe ndombal tank li ba legi nga seet suñu ben yoon da nga ñewon rek pour visiter xol bo ba gisatu ñu la vraiment ñu koy wax dal niko soxla nañ ko fi wala su fekkenteni bi xatna bu mën ta ñew suñu woowee tam ni dem buy jiko tok mëna waxtaan ak mom ah mu xol nu mu ñu jappalé ci travail xol nu mu ñu jappalé ci lumière vraiment fii moom boo fi ñëwoon guddi moom da xam ni carrément lëndëm la. surtout buntu atelier bi. waaw matériel moo fi nekk. suñu problème moom mooy nii ku ñu si jàppale moom bu soobee yàlla. moom loo kupp ñu baax la. loolu waaw ndax ay xale lañu yor. Mm-hmm. waaw te gis nga ñëpp majeur nañoo yore carte d'identité a xam kan mooy xam nga maire dëkk bi war a xam leneen ak leneen. Mm-hmm. kon ku si jàppale ku nekk daal moom bu soobee yàlla moom foo nekk ku ne moom nga yaan ñu fekk la ko. ñun suñu problème

xel comme ñu koy dund à chaque fois di lancer appel sur autorité yi tay li yéen a ko gisal sen bopp ci buntu garage auto bi euh, crevé na fi gis ngeen lii lépp ay ay ay jafé jafé la yo xamné ne ko gis te li ci buntu atelier la tay ay nit ñoo fi nek di la daal tey pour ñu dugg ci atelier bi sax problème la gis ngeen problème yi da doon problème yi fi am jafé euh, jafé yi nga xam waa Xelcom ñu ko di lancé waat appel autorité yi nga xam ne yéen a ngi ñu suivre ci télé bu wala ci DSTV Teranga Sénégal ci seen askan bi leen lancé waat appel yéen ñu jàppale ñi nga xam ne tamit ñi ngi fi Xelcom ñu tamit jafe-jafe yi metti yoo xam ne ñu ngi koy dund nga gis lii nii tey oto bi

ak ñoom ñooy xale bu baax pour ñu respecté ñu toll ci mais problème bi mooy suñu yoon yoon bi daal mooy suñu problème bi nga fi sama buntu laaj su ko defee ku ñu génn sa problème ndax loolu léegi nag ñu mën a jàpp ñu jàpp te ñoom ñëpp ñu ñëpp ñëpp ñëpp su xëy si ñu ñëpp dañuy tele la xale daw jàmbaar waaw waaw ñu leen jàpp ñu daal ñoom liggéey ba leen jëm gis nga ngeen mën a daal jàpp leen daal jàpp vraiment daal xel ko daal parce da ngay wax amuñu fenn fuñ tudd bëri amuñu fuñ areeral areeral bi ñuy wax boo gisee euh, ñaari oto pour ñu jàpp mbalit bi boolal mbalit am ñi nga xam ne tey poubelle boo xam ne kat ay ay ay ay doomu aadama ñoom ñoo fi nekk feebar bu nekk mën na cee génn tey fii xel ko boo fi duggee poto ci

waaye jafe-jafe tamit lu ci bëri lu ñuy wax tey suñu bët mbalit maa ngi gis tamit wax dëgg ndox la ñu koy métti na waaye gis nga ko amuñu mu taw biir bu yàgg ñaari fan ndox mi doog lépp du dem buntu at day fees mbalit mi gis nga ko am fontuuri mbalit dañuy mujj léeg dañuy luyoo trois roues moom la ñuy loué buñ balee ba pare yóbbu ko sotti ko ci wala ñu am occasion comme oto bagage buñ paree sotti ci mbalit mi tuur parce que da génn du am foofu fenn foo ko sotti loolu mooy suñu problème yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñu ngi ko fi jànkuwanteel. yeneen ak yeneen yooyu yëpp euh, autorités yi nga xam ne ñu ngi ñuy ci télé bu mag bi yan ak yan la pour ñu mën koo saafara.

après dinañu dugg fi nga xamné ne moom mooy euh, fële tamit yi nga ñu koy ñu tamit ba xam wa, euh, di ba xam la dara tamit bu ci euh, bu ngeen ñuy tamit ci yéen a ngi gis noonu ci naaj bi ba ànd ak li nga xam ne moom

tay nak ñu dugg fi nga xamné mom moy mooy xel kom xool jafé jafe yi nga xamné ñu koy dund te buñ fi jugee comme ni ma leen ko waxee ñu dem fa li nga xamné mom moy ci sip euh ba surtout jagsaaw bi xol tamit ñomit lañuy la dund ak li wa xel kom di dund waye bu ñu ñu jaar la lay day carte ne kàddu gi benn ndax boo xoolee jàkka ji la boo xoolee buntu jàkka ji tey ci gaare normalement bu fekkante ni espace am na bu ñëw ba ci buntu jàkka ci gaare côté bi ne boo xoolee ay oto yi jafe-jafe yi daal gis nga ñoo ko ñoo ko jëlee euh, ku ci nekk euh, su ma yeboo ma ni euh, kilifa nga xam bedd yi benn bedd boo gisee mën na remplacer la ca des waaw fii gis nga jafe-jafe yi daal waaw ñu gën a mën a ñëw daal ni waa comme ndax yow boo xoolee ba ñu commencé dox ba léegi Euh, am na ci côté yoon tamit pour xel kom quartier secteur la bu mag boo xamante ni waaw ci boobu kon ni bi boo xam ne euh, ñi nga xam ñooy ñooy ñooy ñooy ouvrier yi lu dul tànk dañ leen a soxla te fu mu réew mi boo ci génnee ouvrier dara desatu dara desatu waaye nag daanaka buñ la soxlaa rek ah, la ñuy daal di ñëw wax seeni wax ah, dem fii daal boo bëggee dégg bi waaw te te di ci di ci di ci di ci di ci yéeme euh, Lamine xelkom euh, ah, dañ la ndax euh, bi ñu commencé dox di dérivé bi ba boo fi fekk boo fi ñëwee ñi nga xam ne dañuy daan seen doole nga fi gis ay jeunes. kon fii ñu leen war a jàppale lañ waaye jafe-jafe yi nga jëm ci wàllu euh, yoon yu xat jëm ci wàllu ndox jëm ci wàllu mbalit loolu yëpp yi euh, autorités yi tamit war nañu ko bàyyi xel ñoom ñi nga xam ne moom mooy xel euh, ko Euh, ginnaaw liñ euh, leen ko waxee woon egg si nañu fi nga xam ne vérité euh, site bi nga xam ne moom mooy xel Xelcom comme ni ma ko waxee woon tur day wuy boroom tey boo fi ñëwee xel nga fi xale yi di jëlee ak koom-koom nga boole ko mu jox la xel koom waaye xel beeg koom googu yëpp gis nañu jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund lu jëm ci wàllu yoon yu bon lu jëm ci wàllu ndox lu jëm ci wàllu mbalit te Xelcom ku fi dugg xool xam ne Xelcom du koñ

lu ci bëree bëree bëri def lu ci bëri def ndaxte sëkk bi ñu ci njëkk a def moom mi ngi si gouvernement bi ndox mi moom nga jox euh, ak euh, aide bi nga xamante ne tey moom la président doon joxe moom moom jënd ko ci bëri jot ci kon vraiment kooku ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax bu ñëpp meloon ni moom yaakaar naa ne moom waaw fépp fu ndaw réew nekk rek doo am jafe-jafe ndax nit la koo xamante ne day wàcc sur le terrain Eh, di xool jafe-jafe yeeg mu ci mu def ko ci di lancé appel monsieur le maire Djigo comme ni ko ci di ko wax ni fii secteur la bokk vraiment soxla nañ ko fii ba gën a mu wane fi boppam bu baax a baax ba kenn dootu ko laaj ay ay ndaw fu nu nekk fu ne autorité yow mi autorité ndaw yi war nañ la war ñu koy wax ni daal vraiment soalnya nañ ko ci jotaay soxla nañ ko lool lool lool ak yeneen yu waaw loolu mas moom di rafet ñu ngi vraiment lool commencement bi tëb moom kenn ku commencé bi am fu yem ndaxte vraiment bàyyi ngeen ma bu baax yang baax ngeen sumb yal nañu ci gis bu kawe seen jot yàlla télé bi nga xamante ni tey yéen a vraiment di ñaan télé yëpp même bu ñu doon ci dund xaw ci télé yi ñu gën ci na ñu Cees Cees nag bu fekkente ni doomu Cees wax dafa ñëw bu def lu mel nii jël ay ndaw yu Cees leen ci liggéeyloo vraiment dañ koy ñaanal euh, xéewal kenn ku nekk daal gis ci lu kawe seen Euh, ay ca mbokk yi mi ngi noonu euh, ginnaaw euh, biñu ñu fi nga xamné mom moy xelkom ci émission bu mag bi di émission eutu askan bi ma àndoon ceeg sama xarit sama doomu ndey sama jumo émergé ñu àndoon ceeg ki nga xamné mom moy Lamine Kane fi nga xamné mom moy xelkom vérifier site bi xol jafé jafé yi nga xamné am nañ ko damay naan coow jub ci wutali ji nga xamné nak mom moy mooy kool tamit ñoom it yan jafe-jafe lañ ciy dund bu ngeen ñu toppee ay ca topp leen ñu dem fële ca Jaksaaw